mais malheureusement condition de sécurité yi dajewul condition d'organisation yi dajewul mbir bi aussi ak fi tollu ci préparation warul jël yenn risque yi bu gisee insécurité am li gën mooy mu rocceeku dem yoonam c' dommage que la presse mos di ñu def seen liggéey mais combat bi mo tollu non parce que ëmma li mu